xasuñ kenn sabati wuñ kenn ndax loolu du suñu jikko mais kii la ñuy topp kuñ topp nag dafa am yaakaar président liñ bëgg boo gañee réew mi nga soppi jikko yi jikko yi yàq na defar ndaw ñi defar mag ñi defar ñëpp defar réew mi ku ne gis sa bopp mën nga ko moom nga ko defal loolu ñu ne baaxoon di ñaan xaalis mais nag li ñu bëgg bu ñu jàppale ñu am moyen dem si dëkk bi waa commune Sall Sall yi seen commune seen responsable Alaaji Mbay ñu ngi teew fii comme que tey la ñu ñëw na. ministre Wadène seen responsable Jumel Sall ak ñaari xale yu ñëw na teew weeru koor yi moo tax nag loolu la meer loolu dina neex. kon nag wax bi nañ koy mën a fii ñu bëri mënoon nañu mu nekk dañuy jox président. mu ñëwoon ni jëf yi ñu continué xam ne ñëpp di nuyu bu baax a baax di nuyu kilifa yi nuy seen xam nañu ni coono bi at yi ñoo tax mënu leen ne ndaw yi taxaw ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay wante gis na nañu cofeel bi ngeen ñu teeroo gis nañu yéene bi ngeen ñu teeroo abdu Seck nga xam ni kilifa la dëkk fii yàgg nay am yéene fekk si ñu Basirou Sy doon kenn ci ñun boobu ba tey ñu may soññ pour ma yegg si fi wante waxtu bi yàlla tànnal boppam waxtu boobu mooy waxtu bi gën toujours te tey la sunu boroom tànn nu yegg si fii di leen jaajëfal bu baax di leen masawu bu baax Abdou xam nañu ni nitu kàddu la xam nañu ni nitu pas-pas la xam nañu ni nitu dëggu la nitu dëgg la ku dëggu la loolu mën nañ ko seede ci moom moo taxit ñoo ngi koy souhaiter la bienvenue dans la coalition Déthié Fall 2024 coalition boobu moom mooy coalition de l'espoir mooy coalition de la vérité mooy coalition de l'engagement patriotique mooy coalition pour le développement social le développement économique et coalition boobu dafa jóg pour liggéey Sénégal ci jub liggéey ko ci dëgg fexe ba jàngoro yi nga xam ni kenn nettali ko ci këyit dafa doon ay jàngoro yu nu dund ak askan wi ci fépp fu nu mos a jaar ak yi nu mos def gis ni nit ñi ñoom ci coono bu rëy rëy balaa ñuy yegg si fii rek ñoo ngi jaar ci piste gis nañu ni piste bi guddee ni bi méttee gis nañu li ngeen di daj tous les jours pour mën dem ci route loolu nag maa ngi wax fii ngeen bind ko bu nu yàlla mayee ndam ci élection bi le 24 mars 2024 bëgg nañu régler loolu ci lu mu gën gaawee. te may wax dama ni leen noté ko ndaxte dama doon kuy respecté kàddoom jamono ju ne moo tax la may wax dama koy ñeme ndax nekkuma ci ay engagement politique rek mais dama nekk ci gëm-gëm ni Sénégal. mën nañ ko defar et war pour ñu defar que mi ngi fi kon la mooy ñaan rek di am ay dirigeant yuy wàccanteeg seen bi te yaakaar naa ni Sénégal ci loolu ñi ma xam ñëpp nangul nañ ma xëy na bëggoon nañu gën a waxtaan bi wante mënuñu leen fi téye boobu ba tey demu leen ndogu ñu war fi continuer di jël kàddu muy gudd di leen fi téyewaat kon li ñu mën a wax ci gàttal mooy ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen wax nag na ngeen xàmme bulletin bi mooy bulletin bi nga xam ni ñaay couleur ñoo ci nekk couleur bu jaune bi ak couleur bu weex bi bu leen leen jaawale dama koy wax fépp fu ma jaar ku toj nen ñaari couleur nga fay fekk bu jaune ngay fekk ci biir nen bi ak couleur bu weex kon nen baangoog ci biir koor gi fexe xëddee ba pare ngoon sa dem ngeen ndogu ak nen bi couleur bu soon bi ak couleur bu weex bi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant et